mbokk yi maa leen waxoon fu ma gis taalibe yonent bi wala taalibe Seydil Hadji Malick boo xamante ni day tagg yonent bi mbaa muy way Seydil Hadji Malick dinaa leen ko indil tey kii laa leen di déglu leen ginnaaw ba nu yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa yàlla defal dégg ak ñëpp ku nekk sa tur sa sant di la ziyaar te ñëw fii nag tey di ziyaar benn xarit ñu wax alaaji meng yal na yàlla guddal fanam te wéral cëram borom maam ndox TV dama su bëgg ñëw far nga egg si kon nag wokkatu bu ànd ak gestu la yal na yàlla def jàmm borom maam ndox TV waaw ñu daje jag saaw kër maam Abdou daje sama wetu kër turndoo suñ Mansour yal na yàlla tax ñu si barkeem te yokk leeram xeebuñu kenn amaana mën naa ñëw ñu ni ma amul problème xale nga mënoo dara mën nga dem waaye ma ñëw ñu yaatal ma seen bopp di ma jël di ma filmer seen euh, seen te di ma jël seen portable yi di ma di ma defal lu ne yaqiina man ma waaw waaw kenn du yéen farij humumal muslimina wa karba waaw yaa خير من مدى العدات اليدا يونتي بي كن يونتي وينا لا يونا لا نالا نالا ويل يونتي بي يا جروي yaa jarakan yaa ngani yoo oh, joroy an soppi yonent bi loxo Seydina Muhammad yow yaay ajarabal xalqi yaay yow xayrul anbiyaa yonent bi naw naa la yow yonent bi sama waay bëgg naa la yonent bi sama waay jaral nga ma jooy jaral nga ma jooy jaral nga ma jooy jaral naa la ma waay yu ni di beey bëgg naa la nga ni sama waaji laa wayal way naa la falajum yu ninti bi yaa jar wayal ku la way tabi aljana ku la kañ naani kawsara Sëriñ Si Malik mi ngay bëgg joobe pour ma joobe la ko way ko muy borom bone kaare bi du jengal du wengal du sengal fa mu ko daj at bi boot ba jëlu dee bala kay do do do do jëlu si mbaa ba kër kenn du moom sëriñ Babacar mooy borom bone kaare bi du ko jëngal du ko wengal sama waay fu ma ko day at bii ba at ba del see fa la kay daajat kenn du sëriñ Babacar lu ma neex ci mbay bi dafa taaru maam Mbay dafa maandu Serigne Babacar Si mi may bëgg joobe waa Ndokh TV lay wayal Serigne Babacar Serigne Babacar bonam bone kan du ko jengal du ko wengal du ko sengal fam ko daj bu at bo jëse fa la koy daaj du Serigne Babacar il est pili beau Il est gentil, il donne de l'argent, il est adorable. Il est plus il est plus il est plus marabout Sénégal. Sidi Abou Bakar daan seedeel lool waaw waaw